dani da nga wara xamne roy du niroog pire du ci Ousmane Sonko du ci yow quoi man waxoon naa dama tontoote ay yu mel ni mais waaw damay taxaw fi mais dama ay réew la def quoi ndax Sénégal lu waay def ñu toppandoo la manam ñom gis nañ vide bi Ousmane Sonko def Sénégal jëme ko ci manam limu doon ba exi fu mu exi ñu bëri dañoo fogné parce que manigance moko ko may déedéet maanaam aboutissement wu la don don long boo xam ne dafa commencé ci nekkoon ci barab di liggéey jóge fa def ay dénonciation yoo xam ne du ko teg du palpable du dàq ko liggéeyam moo indi conséquence kii mu doon tey ñëwul rek ne def politique waaye yow ku mel ni Bougane Gueye Dany politique moo la tax a jug Ousmane Sonko nga teg bët te foog nga ne tant que defoo lu Ousmane Sonko def maanaam sénégalais yi dañu la jox bopp waaye xamal ne tamit li Ousmane ci Ousmane Sonko du ci yow. gars yi dañ laa teel a démasqué ah te ngaa dem toppatoo sa njaboot yàlla dimbali na la jox la sutura nga am liggéey yor ay employé foofu la la yàlla sédd Ousmane Sonko la ko yàlla sédd Sénégal moo mën a toppandoo doomu aadama lu waay def ñu toppandoo ko aadama moo nga xam ne sama xarit la ba mu fi génnee indi stylam moom la concerné mais ñëpp commencé toppandoo pourtant li ci aadama du ci du ci keneen Bougane Gueye Dany Sonko la teg bët

Euh, mercenaire u Macky la kooku moom alal utum alal jaral na ko jaay doomam wala jaay doom jaay ay jaay jabaram ba jaay askanam wala jaay ki mu doon te c'est un li ko yàlla def la musul nangu ci àdduna waxoon naa ko waxaat ko fi maanaam li mu judd doon ko muy muy fi mu bokk maanaam loolu da ko métti ci xolam ba tax na moom xaalis foog na ne moom nu mu ko amee baax na pour juste rek dindi statut boobu noonu ni ñi di ko xoole ci société bi mooy nga nekk ñeeño te ñeeño nekkul loo xam ne ñi ko doon dañ cee fier wala nga nekk géwal ñi ko nekk fier ci yow yàlla def la nga doon géwal mais fieroo ci moo waral tey jii nii pour yow da ngaa war a am alal kut kut kut te lu mu la jaral rek lu mu jar pour nga am ko rek euh, da ko war am pour lan pour dindi yi boobu loolu mooy bañ bañ bañ bañ ki nga doon bañ bañ fi nga bokk waaye ñi ko doon moom sant nañ yàlla ci lañ doon kon gëmal sa bopp danga nga tàmbali nit ñi bëgg la gëm la ngay wax lu leer dem ba yow jaay sa ngor li naan l' américain naan sell your soul mooy jaay sa jaay sa ruux yow loolu nga def donc gars yi ñu concentré wu focus te nguur gi bàyyi et bàyyi bàyyi justice def yoonam justice tant muy def yoonam ma jàpp naa ne xolal coow du jub wasalaam